alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. zakatul fitri laajoon nga ko muuram koor nit ñu ba ah waaye xam nga koor moom jarul ñuy wax ak yow ci muuram koor ku gëmut koor gëm koor waxe noppi waaye yonent bi ko oor weeru koor te joxe woo muuram koor. chahru ramadana muallaqun bayna alsamaai wal ardi wala yurfau illa bi zakati alfitre yàlla daf koy aj diggante asamaan ak suuf moom weeru koor yàlla du ko nangu feek génne muram koor muuram koor ci bisu korite lañ koy génnee fuqahaaw yi wax nañ ci nañ fukk ju njëkk sax boo ko ooree mën ngaa génnee muuru koor fukk ci digg bii boo ko ooree mën naa génne weeru koor ci ñi ko gëm laa bokk man te wax nañ ne nga génnee ko xaalis moo gën nga génnee lu ñuy lekk parce que miskin mi boo ko joxee dugub fii ñun fii ñu ngi fii Saloum bu ma nattee ñaari kilo liibar ci dugub muy benn bopp ma jox ko nit commerçant yaa ngi koy xaar bu àggee ñu ne ko dugub dafa wàcc te njaboot la amee ceeb lañ koy laaj ak luñ jëndee jën ak yàpp man xaalis laa koy ma jox ko ko loolu yeg doom ju mu bëgg xottil dara dégg nga wala ordonnance bu mu amee ci poosam man bokk naa ci ñi gëm ne man du ma ko génnee ceeb du ma ko génnee dugub fi mu xaalis laa koy génnee te bu ma ooree fukki fan incha allahu taala bu ma ko yàlla joxee ki di jours yi ci laa koy joxee man yi ci digg bi jox ko mu dimbandikoo ko muy loolu weeru koor nag yàlla du ko nangu mukk te borom génnewul muram koor ci ñuy oor nag ñoo tax ñuy wax waaye ku oorut sa yoon nekkul ci muram koor mm-hmm. min julli xuuti daalika al la fuqaha wax réew mañ koy génnee mooy la ñuy dundee la ëpp ca la ñuy dundee xam nga fii dugub ak ceeb la ñuy dundee wax yàlla bu la neexee ci ñaar yëpp boo ci am njëgam nga génnee ko ñoom ñaar dugub ak ceeb nit ñi dañuy lekk dugub bu baax a baax a baax a baax surtout ñun fii ñu dëkk dégg ñu ngi lekk ceeb itam bu baax a baax ci senegal yëpp kon weeru koor nañ ko génnee muuram koor la tudd eh, su fekkee ne nag or nga ba sobeetal mburam koor man nañ ñi ci Europe maa ngi wax ak ñi ci diaspora bi loolu ma li ma leen di wax nii dañoo nekk sax ci atam jaayixa atam mbas yal yàlla dimbale ñi ci biti ndax ñu ngi jànkoon jànkuwanteeg lu métti uti lu baax te teral seeni waajur yiñ ñu bàyyee gannaaw moo leen taxaw nag génn seen réew di tumuranke Europe yoo neexut te dafa jafe sedd ba fa nekk yombut dëgg yàlla dund bu jafee fa nekk te ku toog liggéey too doo too am dara te liggéey jafe na fa fi mu nekk ndax nii àddina bi demee waaye maa ngi leen jox na leen bu àddina neexee wala ku ci am dara yónneel sa muuram koor fii jox ko say wàjjur ne leen génneel leen ma ko ñu jox ko miskiin miskin nag muuram koor nag ñi ñu koy jox jigéen juy sey bokkut ci Sénégal xamewuñu lan da ngay gis ku naan la saraxal sa baay wala saraxal sa yaay doom du sarax ndeyam du sarax baayam baay ak ndey duñ ko sarax sa baay yaa ko war a dundal par force la force la loo kenn neexalu la ci obligation la sa yaay dundal obligation la kenn neexalu la ci jigéen juy sëy am na ku ko dundal ki ko amee su fekkee mënatu koo dundal su ko neexee mu laaj baatam dem ñibbi te dara yoon toppul ko dara sañ ngaa jox jëkkëram nag muuram koor mu dundal ko moom sañ nga ko jox azaka yi mu dundal ko azaka ak muuram koor a em duñ ko jox koo xam ne jigéen juy nekk ci néegam di sëy duñ ko ko jox boo ko bëggee may xaalis bu la neexee nga may ko xaalis waaye lii moroom koor la walla lii asaka la déedéet ndey ak bokkuñ ci kon ñun ñëpp nañ góorgóorlu génnee ko dëkk bi yàlla leen yàlla wattu ci li ñu borom dëkk bi bàyyee te dénk ko jàng jàngale liggéey topp yàlla bàyyi ñas loolu la fi wax jàng ak jàngale ak topp yàlla ak liggéey liggéey bu dagan loolu la wax lépp lu ci tegee dafa rax daf ñoo dollal la waaye ñun loolu loo ñu tax a jóg leneen taxut ñoo jóg àddina bii ñu ngi ci waaye dañ cee bëgg a tabaxee suñ kër yi àllaaxira yee ëllëg dañ ci suñ kanam ñu ngi dox jëm ci ñoom te looy dox jëm ca lu mu sori sori da nga ca mos a àgg waaw fa innal yawma amalun wala xisaab wa xisaabun wala amal suñu àggee ca bis booba yàlla na suñ mbir yomb yaa rabbi ya allah ñun ñëpp yal na ko yàlla defal jullit ñëpp barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke cheikh ahmad tijaani radiallahu anhu barke maam alxaaji abdoulaye ñas radiallahu anhu ak mboolem mi doomam ci barke mawlana cheikh ibrahima ñas radiallahu anhu allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim